dañu ko woote woon tey parce que fii ci Thiès dañoo dañoo dañoo seetlu ne APR la di parti boo xam ne ni tey dañoo am tuuti problème communication am beneen problème boo xam ne ni président li mu def ci réew mi dafa bari lool lool lool lool lool tool car macha allah boo jël am na fa président de la république def mais malheureusement population yi nekk ci réew mi yu nekk Thiès xamaguñ li président def ñu ne nag ñun lacune boobu tey nañ ci def bay suñu waar fexe ba corriger ko li koy corriger nag mooy fexe ba président euh, ba ba nit ñi xam surtout nag ndaw ñi. parce que ndaw ñi kay ñoom ñoom daanaka ñoo yenu parti bi ñu woo leen nag dafa leen li wax renforcement de capacité chaque mois ñu jël benn ñaari thème ñaari secteur d' ñëw waxtaan ci ak jeunes yi ne leen lii ak lii ak lii la ci président def bu ñu fi jógee nag léegi jàll ci seen i commune dem vulgariser ko ko defee population yi man koo xam yaakaar naa ne loolu koy def programme ñu ko tuddee Thiès horizon te dañ koy continuer incha ay dons yi nga xam ne dañ koy def au niveau des populations yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw beneen bi ci dëkk maay actualité bi loolu aussi war naa ci wax dañuy fan yëpp ngeen ñuy dégg ñuy wax affaire contrat affaire euh, contrat ay affaire marché ay affaire contrat minier loolu aussi damay leeral na rek euh, Sénégal boo dee xool en matière d'administration dañu am lu ñuy wax ñetti type de contrat moo fi am am na li ñu wax contrat administratif am contrat plan am contrat d'état contrat contrat contrat administratif xam ngeen ko c'est l'administration et les particuliers contrat plan nag mooy li nga xam ne moom la nguur gi di séq ak ses démembrements mooy les collectivités locales contrat d'état loolu mooy li nga xam ne réew mi am na droit signé ko ak un privé international tey président mën na ne damaa bëgg a tabax aéroport wala damaa bëgg a tabax stade mais tey jël naa damay liggéey ak benn privé boo xam ne privé international c'est-à-dire loolu il faut ñu xam ne euh, réglementation bi la ko prévoir te contrat d'état boobu nag bu ñu ko signé ba pare l'état l'administration n'a pas obligation di rendre compte bu ko neexee mu signé ko rendre compte bu ko neexee mu signé ko bañ koo rendre compte kon loolu bu ñu ñuy bu ñuy jaawale loo xam ne ni réglementation bi la ko kon Abdou Mbaye yaakaar na ne li muy wax yëpp tegu ko fen te teguut ñi rappelé nit ñi ne Abdou Mbaye amul problème ak Macky Sall amul problème ak APR moom problème la problème personnel la am ak jabaram jabaram moo ko porté plainte ñu dem justice bi mu ko porté plainte nag la fa dem falsifier ay documents administratifs falsification document administratif nañ ko nañ ko jàppee kon nag loolu yoonu Macky Sall nekku ci yoonu APR nekku ci donc bu ñuy jaawale bu fekkee nag moom dafa créer parti politique pour yaakaar ne mën na xëbal nit ñi wala mën na tiital nit ñi ba génn ci guddo googu ci la dugg lay nax boppam je pense que nous nous avons un président assez responsable am problème la am ak jabaram ça n'a rien à voir taxawaay bi mooy fexe ba gagné département Thiès objectif mooy de gagné le département nañ ko en 2016 incha allah suñu yéene mooy gagné ko am nañ écart 7000 au niveau de la zone tey commune bi moo ñu dese yaakaar na liggéey bu rëy bi nga xam ne ndaw ñi ni ñu def ci commune bi ànd ko ak seen responsable am naa yaakaar ne bu ñu ci delluwaatee commune bi dina nekk APR. am na nag ay poste de résistance yoo xam ne am na ci est bi am na tuuti ci nord bi mais loolu dañ ñi ngi ciy def ay pexe pour fexe ba poste de résistance yooyu ñu démantelé ko ba nga xam ne bu ñu ci delluwaatee yaakaar naa ne APR a gagné largement le département de Thiès parce que loolu moo ci ñenn jiitoo nañ mille deux cent cinquante voix à peu près ci référendum am deux mille trois mille voix d'écart yoo xam ne moom nañu am au niveau du département de mais objectif bi mooy c'est de gagner la commune et de gagner la zone rurale. le président na bi euh, tànneef bi ñun dañ ne ñun ndaw ñi amuñu bu président nee weex na dañ naan weex na tàll su président nee ñuul na ñu ne ñuul na kuk. président de la république porte na chance ci suñu camarade Mamadou Ciss bu dëkk Kër Moussa ak suñu beneen euh, frère Talla Diagne bi nga xam ne mooy maire Thiénaba ak suñu camarade de parti Yaya lii bi nekk l' alliance euh, des forces de progrès kon ñun dañuy jóg taxaw fexe ba loolu nga xam ne moom la président de la république def ñu fexe ba am ci ay résultats yu bare bare objectif bi mooy du gagner parce que jàpp nañ ne ñu sommes majorité dans le département te dañuy gagner mais dañoo bëgg a avec la manière gagner moo di fexe ba le taux de participation nekk taux de participation ba fa lay romb 50 pour cent objectif bi la loolu la moo tax liggéey bi ñu koy teel tàmb bi fexe ba conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi yëpp au soir du 4 septembre ñu dem voté ji wane na maintenant moom loolu mooy suñu te dinañ waaw non ñi ngi liggéey parce que bu ñu liggéeyu kon yaakaar naa 2016 résultat yi ñu am duñ ko am ñi ngi liggéey au niveau de le département de Thiès tëdd di nelaw yaakaar na fi ne nii jeex na bay woy na mbuus damañeen département bi déedéet politique moom dox la ak wax la boo noppee dox noppee wax rek yaakaar na dafa too politique moo tax ba dañuy takkuwaat jógaat fexe ba li nga am na moom nañu amoon ci ak yi ñu conserver ko mais aussi yokk suñu doole au def liggéey gu parce que ne aussi dafa lu am solo ci aussi ci ci ay élection mooy performance gis nañ Abdoulaye Wade li mu amoon fii deux mille ay deux mille ay deux ay ay ay deux mille euh, yooyu mais aujourd'hui tey grâce à nos camarades de commune aussi ñu ngi def liggéey bu am solo ñu tey réduire nañ écart bi au niveau de la commune département bi ñëw ñu mën koo gagné kon nag yaakaar nañ dañ leen di encouragé ñu continuer ci dynamique boobu ba écart bi ñu koy gën wàññi di ko gën di wàññi nga xam ne maintenant que soit la zone que soit muy commune bi dañ koy gagné largement kon nous félicitons tous les yi nga xam ne tey ñëw nañ jàpp ci bis bi parce que lii aussi jeunes ñoo ko jël initiative yi mais bu ci responsable jàpp kon du sotti tous les panélistes nga xam ne ñëw nañ ñu leen sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay parce que lii aussi wane na aussi ñoom jóg nañ pour fexe ba président de la république li mu bëgg ci Thiès mu am ko kon ñi concernant les collectivités locales fii dans le département de Thiès. Ah, bis bi ndax li ko tax a jóg mooy jeune département yi moo nii ni ñu ñëw ñu xalaat wax leen ci wàllu communication ci wàllu énergie li fii président def mais saytu nag xam nga nag nit boo nee ko dama bëgg nga ñëw wax ma li doxul bu la koy wax nag même bu la neexul da nga koy nangu et déglu nañu je crois que nangu nañu mooy ñu wax leen ni problème communication li tax ñu ko am mooy ku wax. ku jóg wax lu la neex waxe ko fu la neex loolu du dem mais li dal suñu xel mooy Thiès dafa bëri ay jeunes lool yu engagé wu ci politique te loolu dafa am solo bokk ci mouvance présidentielle ci président Macky Sall donc ñun dañ leen di ñaan ñaax leen ñu organiser wu di laajte di wër di am xam-xam xam li ñuy wax ñu won leen nag nañ ko def joomu sa gis te nañ ko waxtaane la jaare mais bala ñu koy waxtaane il faut que nit ñi toog ñu leen gëmloo ni xuloo ak xeex ak benn solo loolu lañ leen wax en tout cas ci wàllu communication bi wax leen ni il faut ngeen jàng jàng nag du diplôme parce que communique euh, politique nit mën naa jàng ba réere ba mokkal téere yëpp te ci wàllu politique du am résultat donc ni nga koy jàngi mooy nga dugg ci nit ñi nga xam li ci pénc mi nga xam ni Sénégal ci wàllu communication boo saagaa saagaat yi dootuñu la déglu donc te bu ñu la dégluwul sa message du jàll ñu ni leen ànd leen ak dal wax leen ci tey ak ci teg donc je crois que mën na am ay résultats yu mu jur waa dama leen wax ni leen te loolu dama koy wax sama jeunes yi bokk ci mouvement bi dama leen wax ni leen euh, euh, mën nga ni kii de moo ma doy ci ginnaawam laay topp mais nekk ndawam nga xamante ni ku ko wax dara nga takku saaga ko wax lu ko neex loolu laa leen ni leen amul sens parce que loolu li muy mën a def rek mooy sa day dem ba loolu da koy. Euh, isolé ba daanaka dootul amati ñu bari ñu ànd ak moom ma ni leen ku xas seen leader bu leen ko xas dem leen waxtaan ak moom bu ngeen demee ba xam ne mun leen ànd ak moom mais bàyyi leen ko parce que kilay saaga te yow déggul ni déggu nga wan ko ni déggu man yaa ngi may saaga loolu rek doy na tontu je crois que leneen liñ leen liñ leen liñ leen wax mooy euh, ci wàllu anarchie bi nga xamante ni moo am ci maanaam ci ci parti bi ci mouvance bi loolu il faut ñu gën a toog régler ko ba ku ci nekk booy wax. nga xam li ngay wax xam ni parce que damay wax sànq wax naa ko nit day wax ñu ne ko li nga wax dëgg la mais kenn laaju la ko nga ñëwaat wax ñu li nga wax dëgg la mais yow du yaa ko war a wax nga wax dëgg ñu ni la lii wax nga dëgg mais du fii nga ko war a wax loolu yëpp nag àndandoo toog xalaat mais gëm nañ ñi daal suñu xel dal na parce que xale yi lii ñu réaliser tey yombul d'abord ñu def ko ci dal kenn saagawul kenn xuloowul kenn xeexul loolu déjà c'est un début merci